waral mooy sant sant euh, Baye Cheikh Ahmed Tidiane Seck muy suñu sëriñ di suñu wël di suñu euh, xalif général sant Macky Sall mi nga xamante ni mooy président bi mooy yore euh, moo ñu tànn ci au conseil des collectivités territoriale sant googu moo waral ndaje bi moo woo nag sama am di jàmm yëpp woo ñi nga xamante ni ñoo daan ànd di politique ñëpp woo ñi nga xamante ni ñooy samay parent yëpp ñu ñëw sant le xalif général sant le président de la république wax leen ni itam lii ñu ma jox di ndomb ak tànk bëgg naa ko mérito bëgg naa cee liggéey sama kemtalayal kartan ni ko Macky Sall bëgg ni ko Baye Cheikh Ahmed Tidiane bëgg ni ko suñu président bi nga xamante ni moom la ñu euh, président de la république choisirel muy euh, Ousmane Tanor Dieng nam ko bëggee dinaa ko ni defe ànd ak moom dans la discipline et autant que possible dans l'expérience dans tout ce que en tout cas Dieu m'a donné comme possibilité euh, pardon donc ak lépp loo xamante ni daan sama kartan may na ma ko dinaa ci ànd ak moom ànd ci ak Ousmane Tanor Dieng di gërëm aussi au passage Ousmane Tanor Dieng parce que nit la koo xamante ni ñëpp xam nañ euh, euh, ay ay taxawaayam ci réew mi depuis Senghor ba léegi nit la koo xamante ni ñëpp am na xam nañ xam-xamam nit la koo xamante ni ñime nañ ko ànd ànd ak moom ñu ngi ñaan yàlla suñu ànd bi ak ñëpp ñoo xamante ni ay conseillers lañ ci ay hauts conseillers ñu nommé leen yàlla defal ñu ndam ci euh, liggéey bi ñuy sumb di ci di ci sant bu baax a baax loolu daal moo nekk waaw sama bilan wax naa ko eh, eh, eh, sànq mais en wolof nee na diggante bi biñ ma falee di 2009 ak 2014 juróomi at la diggante bi ma nekkee 1960 ak 2014 juróom fukki at la juróom fukki at yooyu fukki école ak ñeent la ci. ba amoon sama juróomi at bi ma dikkee dolli naa ci juróom-ñaari école ci juróomi at juróom-ñaari école yooyu xam nga boo ko boolee fukki école ak ñeent day nekk ay ay ay ay fanweeri école ak nangam donc loolu mooy ci côté euh, éducation ni ko naka noonu euh, ndox eau potable ndoxum robinet ñaar fukki dëkk ak ñaar ñoo amoon ndox ci juróom fukki at 1960 ba 19 ba 2009 bi ma ñëwee ci 2009 ba 2014 joxe naa dëkk fanweeri dëkk ak ñett jox naa leen ndox. at mu nekk ci li ma fi nekk tabax naa ubbi naa école wala ma ubbi ñaari école at mu nekk def naa au minimum juróomi dëkk jox leen ndoxum robinet. bi ma fi nekkee at mu nekk jox naa dëkk au minimum juróomi juróomi dëkk jox naa leen robinet sans compter nag marché yi ma tabax. Mhm. sans compter stade yi. Mhm. sans compter dispensaire yi. Mhm. sans de santé amul fu sama loxo laalul ci juróomi at yi. dama dama lim loolu rek sans compter financement yi parce que dama amoon ay partenaires. partenaires yoo xamante ni liñ fi indi ëpp na ay ay milliards yi la. ñu financé ko jigéen ñi def ay cantine def fi def ay ay ay financement ak jàmmi aussi jàmm ji nga xamante ni moo nekkoon ci population bi damaa créé wan jàmm ci population bi maa ngi ko commencé ci chef de village yi chef de village yi dama leen a woo ñu ñëpp ñu regroupé ñu ñu am ku ñu diriger di sëñ Mbaye Samb nga xamante ni kuy wax wax ci moom lu ñu soxla benn moom kenn laay wax ñëpp euh, ànd ci muy jàmm joo xamante ni c'était au sein des chefs de village naka ni mu mel ci chef de village yi maa ngi ciy gërëm Mbaye Samb au passage waaye ni mu mel ci chef de village noonu la jigéen ñi aussi dañoo fal ay koo xamante ni mooy seen responsable jeunes yi fal seen responsable tailleur yi fal seen responsable ñu jox leen ay financement maçon yi fal seen responsable ñu jox leen ay financement menuisier yi fal seen responsable ñu jox ay financement amul secteur boo xamante ni laaluñu fa côté santé côté paix nag fa may mujje mooy sama diggante ak kilifa yi. kilifa yëpp muy ñu bangaaj muy ñu euh, euh, njaane képp koo xamante ni yaa ngi fi di mbaaleen canaba nag mooy fi nga xamante ni mooy sama wasila mooy fi may mujje jàmm ji ma am moom euh, tax na sax ma nekk président ñu fal ma conseil. déedéet benn bi ma jógee ci kii dikk naa fi def campagne élection def naa élection euh, référendum ci ci ci euh, euh, kii comité référendum bi la bokkoon. Mhm. maa yoroon chargé des élections ci référendum bi. Mhm. di ñëw itam ñi nga xamante ne am nañu ay ay ay soxla ma ñëw di leen ci jàppale. Mhm. boo xamante ne woote nañu ma ñëw ci. wante nag bëgguma aussi du fait que am na équipe bu fi nekk dama leen a bëgg a may ndax ba ma fi jógee ba ma fi nekk it dañ bàyyi woon may liggéey kon nit ñi fi nekk dama leen di bàyyi ñuy liggéey ci seen coobare. buñ ma wooyee ma ñëw jàppale leen ci waaye boo xamante ni ñu ma loolu mën nañ ko defar ñu bàyyi leen ñu liggéey ci seen coobare li nga xam ne man def naa ko nag mooy jàmm ci kilifa yi jàmm ci njaboot gi jàmm ci population yi développement ci éducation bi développement ci ndox mi développement ci jigéen ñi euh, euh, lépp loo xamante ni mën nañ ko ci ay construction 38 villages yi ba mu daj dëkk boo ci dem rajo lay waxe de mm-hmm. dëkk boo dem ci 38 villages def naa fa dara. Mhm. ci 5 ans xoolal 5 ans 38 villages ça veut dire que au minimum 6 village par année. Mhm. def naa ca dara. Mhm. année année bu nekk au minimum 6 village naa ca def dara. parce que 38 villages muy kër yaaba amul dëkk boo ba ngaa jaayaan mba amul dëkk booy tudd boo xamante ni boo demee Ngomen amul dëkk booy tudd boo xamante ni defuma fa dara. boo demee man la lee maa ko fa def ñii maa leen formé. loolu nag moo tax yàlla wamat ma ba ma dikkaat au conseil di ci sant bu baax nag di sant waaw déedéet maanaam dina tekki ni li ma taxawaay yi ma defoon ci dëkk bi fonk gi ma fonkoon dëkk bi jàppale gi ma jàkkoon dëkk bi day yokk yàlla dina jox na ma normal tànk gi moyen yi ma cay am ak lu mu néew mu bari dinaa ko bokk ak waa dëkk bi dinaa ko bokk ak kilifa yi dinaa ko bokk ak am di jàmm yi dinaa ko bokk ngir jàmmi Thiénaba dinaa ko bokk ak ñoom ngir développement Thiénaba ak n'importe quel développement nag li ma ci ci am solo rek mooy développement bi nekk loo xamante ni jàmm lay doon ci ndigalal kilifa yi ci ci ka ca jiitu ci kilifa yi di bàyyi Cheikh Ahmed Tidiane Seck waaw